defe naa journaliste da koy jàng école mais xaj bi matt na nit ki loolu du information l'information mooy nit ki matt na xaj bi l'information aujourd'hui c'est pas le ministre de la justice a le corona information aujourd'hui c'est la justice sénégalaise a le corona xam ngeen lu gën a ñaaw Cheikh Ahmed Tidiane Dia bu dee juumuma moom mooy directeur u rëbës bu dee juum naa vous allez corriger après waaye directeur u kaso rëbës foog mu wax ñu moom mooy kan pour rëbës dix minutes de communication mu koy jaayee mille francs directeur u kaso rëbës mooy kan pour dix minutes de communication orange mu koy jaayee mille francs ci prisonniers yoo xam ne xëyatuñu gontuwuñu xamuñu lu ñu bàyyi seen ginnaaw yenn saay seen njaboot tas na yenn saay seen njàng doom yàqu na yenn saay seen sëy tas na yenn saay seen baay ak seen ndey faatu nañ seen ginnaaw ñu leen di jaale yàlla na leen yàlla xaaree aljana mais directeuru kaso Rebeuss mooy kan pour jaay mille dix minutes de communication mille francs ñun ñu nekk ci biti c'est pas que nekk ñu kaso moo tax ñu war a noppi ci lii rawatina nag troisième vague bi nga xam ne mu ngi tudd Macky sant sàll tëjaat nañ kaso yi visite amatul ça veut que mënatoo gis sa mbokk donc téléphone ngeen fone yoon la Illimix 14 900 francs tu as 3000 minutes boutique Rebeuss 400 grammes meew ñu koy jaayee au détail boo nekkee ci biti 1500 francs rëbës ñu ngi koy jaayee 1700 ñu teg ko fan même boo demee Saraya euh, Salemata cinq kilomètres de Kédougou doo jëndee xaw ma 400 grammes meew mil 1000 1700 ñu ngi sàcc prisonniers yi ñu ngi noot prisonniers yi marocain paquet bi ñu koy jaayee ci biti 800 francs ñu ngi koy jaayee biir Rebeuss au cœur de la capitale sénégalaise am mille francs lan moo koy justifier transport carburant distance 1000 francs ñeenti pile yu ndaw yi yu ñuy jaayee xawma Petersen 100 francs benn pil cent francs lañ koy jaayee déggu leen ma de les quatre petites piles là yu ndaw yi. yi ñu jaay cent franc Petersen boo duggee biir rëbës pile bu nekk ñu jaay la ko cent franc alors que Petersen cent franc la les quatre ñu teg ko fan. waaw yenn saay nag demi saagu demi saagu soble cinq mille franc nga koy nga koy jëndee rëbës ah, mais ay waleen ñu dem béyi soble ay waleen ñu dem béyi soble di ko jaay rëbës mais prisonniers yi sonn nañu. damm nañu tàyyi nañu c'est pas parce que nag amuñu mbokk bu nekk rëbës moo tax ñu war a toog di seetaan lii c'est pas parce que ñun duggaguñu rëbës wala wala xawma ma Cap Manuel wala Camp Pénal ñu war a toog ne patt ne garaawul ndogalu yàlla la déedéet li du ndogalu yàlla li ndogalu doomu Sénégal la ñu ngi interpellé colonel Bokandé directeur de l'administration pénitentiaire na bàyyi nag saay bu saay bu ñuy def émission mu jéem a woote en direct na wax jour mardi mercredi jeudi lundi et vendredi yaa a plus d'un million de francs ci rek bénéfice téléphone buy dugg ci rëbës xaalis boobu fu mu dugg mardi mercredi jeudi minimum orange bi dina dugal six cent mille francs par jour waaw quatorze mille neuf cent francs kay boo ko dugalee Illimix nga am trois mille minutes mais di nga am loolu mais xaalis fan lay dugg ndaxte gisuñu ko ci lekk bi gisuñu ko ci ci conditions yi gisuñu ko ci matelas yi amul sax matelas gisuñu ko ci dara sa ventilo bu yàqoo boo moytul na nga wax say mbokk ñu indi la ventilo waaw donc nous demandon dans les meilleurs délais un prix yi ñuy def biir Rebeuss nañ ko wàññi ndaxte muy téléphone bi muy boutique bi prix yi ñu fa def sàcc nañ. ñun nag on la possibilité de savoir ndax prix yi wàññi nañ ko ou suñuy mbokk ñoo fa nekk te dinañ leen seeti wala dinañ wax ak ñoom fii ak ay fan buñ ñu waxul ne njëkk yi wàññeeku na ñun dinañ dem rëbës ndaxte nag prisonnier yi nekk rëbës wax nañ ne. ñoom ñu corona moo leen gënal longue détention yi continuer ñu corona moo leen gënal ñuy continuer di leen di nott donc ñun ñi nga xam ne ñooy seen mbokk te nekk ci biti ñun itam ñoom du ñu gën a gore waaw ndaxte boo corona wee doo dee forcément waaye ñu téye la depuis mille 2012 depuis deux 2015 kenn àttewu la loolu moo raw corona man je prisonniers yi nee nañ ñoom corona moo leen gënal li ñu nekkee foofu. cinq ans kenn attewu la six ans kenn attewu la na ma corona jël donc lii mooy li nga xam ne moom lañu fi indi woon benn Vieux Diop Babacar Diop Seydina Mohamed Ndiaye Jula Sow Alioune Badara Koli Mamadou Niang siis yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci dossier drogue bi ñenn ñu sax ñu war leen décorer ndaxte bu dul woon ñoom douane du gis drogue bi nañ leen juger sans délai wala ñu libere leen sans délai te maa ko wax mbiru drogue bii du mës am jugement ndaxte ginnaaw bu ñu bàyyiwee ñaari italien ak ñaari allemand yi foofu la procès bi jeexee manifestation de la vérité dootul am ginnaaw bu ñu libéré ñeenti tubaab yooyu. te ñooñu Italie dootu leen indaat Allemagne dootu leen indaat Sénégal procès bi jeex na léegi nag naka nga nar a affaire bi te ki dawal gaal bi ak adjoint am muy commandant bateau bi <laughs> en fait te teewuñu naka nga mu mënee def jugement te ñaari Allemand yi teewuñu yo y a pas de jugement te tant que laaluñu suñu xalif général wala suñu monseigneur tant que laaluñu suñu waasoo wala suñu diine wala suñu tarixa tant que laaluñu suñu payoor ñun daal ñu ngi fii toog gën saa bëri ñu ne ndeysaan loolu moo war a jeex ku ñu laal sa xalif général wala sa monseigneur nga jóg yuuxu waaye ku ñu noot sa dëkkandool nga ne ndeysaan ku ñu laal payooru jàmbur dàq sa dëkkandoor ci dàq boo xam ne teguwul ci yoon nga toog ne patt sama yoon newu ci waaye kuñ fi dàqoon nga jóg yuuxu jóg yuuxu wallu wuy walloo wuy walloo suñu dëkkandoo yi nag ñu ngi yuuxu walloo waaw ñii suñuy doom lañu ñii suñuy jarbaat lañu ñii suñuy bàyyi lañu ñii suñuy ndey lañu góor ak jigéen torox nañu sonn nañu biir kaso